wasalaatu wasalaamu ala ashrafi alambiyaai walmursalin sayidina wa maulana muhammadin alamin wa ala alihi wa saxbihi ajmain laqin lisaani waxlulan minhu luqad waj'alhu zaakiran wa shaakiran abad waj'al kalaami raashidan wa murshida wa fikrati nawwir wa xalbi arsida mbokk yi assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ñoo ngi leen di nuyu te di leen ziyaara di leen ndokkeel di leen balu àq di leen baal di ñaan suñu borom bi subhaanahu wa taala mu boole ñu jéggal comme ni ñu ko baaxo ànd ak yéen ci suñu jotaayi xam-xam yi nga xam ne moom lañuy ànd ak yéen ci ay bés bu jot ngir di ci fàttalenteendoo ak yéen lu jëm ci mbindum sëriñ bi radiallahu anhu ci suñu jotaay yooyu lañuy dellusi di ko ànd ak yéen di sof suñu kàddu fi nga xam ne foofu lañu ko daane ci suñu bind bi weesu nga xam ne ñi ngi woon ci bunt bi nga xam ne moom la sëriñ bi jagleeloon a taarifu bi aqsaami diin mooy bunt bi nga xam ne ci lañu sëriñ bi doon leeral li nga xam ne mooy xaaji diine yi euh, bunt boobu euh, jeexaloon nañ ko ci suñu bind bi weesu mu mel ni suñu bindu tey ci bunt bi ñuy dugg mooy attaarifu bi kayfiyati l imaani bil malaikati alayhim assalaamu nafaana allahu bihim suñu bindu tey ci e, li muy wax day jëm ci e, malaaka yi malaaka yooyu nga xam ne ñoom ñoo ay soldaar yi suñu borom bi subhaanahu wa sëriñ bi jagleel leen bunt bi bëgguñu cee xamal malaaka yooyu naka lañ leen war a gëme naka lañ leen war a gëme ñoom malaaka yooyu nga xam ne ñoom ñooy soldaari suñu borom bi subhaanahu wa la euh, kon yal na leen yàlla doon dolli jàmm ak xéewal ak mucc te defal ñu ci seen barke euh, kon fi muy tàmbalee ci bunt boobu moom la sëriñ bi radiyallahu di wax ne amal malaikatu ndaal malaaka yi fal imaanu gëm bihim ci ñoom huwa mooy al i al imaanu mooy gëm leen wal ixaanu ak wóoral wóoral sa ngëm ci ñoom maanaam gëm leen ba pare wóolu leen wóolu ne ñoom ay mbindeef yàlla la ñoo xam ne suñu borom bi subhaanahu wa taala moo leen sàkk ci kàttanam waaye sàkke leen ni nga xam ne noonu la ko soobe moom suñu borom bi subhaanahu wa taala waaye bi mu leen sàkkee ba pare itam mu digal ñu ñu gëm leen mu digal ñu ñu gëm leen ñoom malaaka yooyu ndax boo demee ci aaya bi nga xam ne suñu borom bi subhaanahu wa mi ngi ñu fay leeral li ñu war a gëm moo euh, ginnaaw bi mu waxee ne euh, ngeen gëm suñu borom bi subhaanahu wa ba pare la mu ca teg malaaka yi la ca teg ndax dafa wax ne bi amana rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal muminuuna kullun amana billahi al muminuun kullun amana billahi wa malaikatihi la ca teg ñi nga xam ne ñooy malaaka yi kon ginnaaw bu nga xamee ne gëm nañ suñu borom bi subhaanahu wa taala ba pare bokk na ci li nga xam ne mooy tax suñu ngëm mat mooy malaaka yooyu ñu suñu borom bi subhaanahu wa taala euh, digal ñu gëm leen ñu gëm leen waaye itam lépp loo xam ne moom lañu suñu borom bi subhaanahu wa taala wax ne noonu la leen bindee ak noonu la leen melale euh, melokaan yooyu yëpp ñu gëm ko ci ñoom waaye it wóolu ne ñoom ay mbindeefi yàlla ñoo xam ne suñu boroom moo leen sàkk ci kàttanam waaye sàkke leen ci anam gi nga xam ne moo ko soob kon li ñu war a gëm ci ñoom mooy lan bi annahum ndaka ñoom malaaka yooyu laa shakk amul benn sikki sàkk ne ñoom day mawjuduuna way am lañ maanaam suñ boroom am lañ suñ suñ boroom amal lañ ñu suñu boroom bi subhaanahu wa taala ñoom malaaka yooyu summa mina zunubi topp ci ay bàkkaar maasumuuna ñu nu ci feglan maanaam ñu nu ci musal la kon bokk na ci li ñu war a gëm ci malaaka yi mooy ñu bañ a am sikki sàkk ci ne malaaka yi moom ñu am la suñu borom subhaana wa taala moo leen bind amal leen waaye itam ñu gëm itam ne euh, suñu borom bi subhaana wa taala moom moo leen fekk ba du ñu def benn bàkkaar ñoom malaaka yooyu noonu leen suñu borom bi subhaana wa taala bind nga xam ne malaaka yi kenn ku ci ne dafa am rôle boo xam ne moom la la suñu borom bi subhaanahu wa taala jox di la doxloo mission booba euh, bala suñu borom bindee ba fii ñu toll nii euh, boobu ba tey ci mission boobu rek ngay nekk am na ci malaaka yi ñoo xam ne suñu borom subhaanahu wa taala daf leen bind ngir ñuy sujjóot ñooñu ci sujjóot rek lañ ne am ñoo ci xam ne daf leen bind ngir ñuy rukoo ñooñu ci rek lañ euh, la nekk am ñoo xam ne daf leen a bin bind ngir ñuy toog di taaya ñooñu ca loola rek lañ ne am ci ñoo xam ne daf leen a bind ngir ñuy sàbbaal yàlla ñooñu ca loola rek lañ ne kon suñu borom noonu la leen bind loolu mooy seen tabian nga xam ne ñoom mun ñoom mooy yàlla laa yasuuna allaha ma amarahum wa na maa yumaruun maanaam du ñu mooy mukk li nga xam ne moom la leen suñu borom bi subhaanahu wa digal te lépp loo xam ne it moom la suñu borom bi subhaanahu wa digle ca loola rek lañuy nekk ñoom malaaka yi kon ñoom duñu jaam ñoo xam ne dañuy mooy eh, aka aka topp déedéet ñoom seen lépp ak topp yàlla la ci ak topp yàlla eh, ci lañ ci la leen suñ borom bind teyit ci la ñuy faatu wa annahum ak ñu gën itam ne ñoom malaaka yooyu laa yataxawwatuuna duñu oh, xayta maanaam ñu dem ginnaaw kër malaaka yi suñu borom subhaanahu wa taala daf leen bind ñuy bindeef yoo xam ne du ñu soxlawoo dem ginnaaw kër duñu ko soxlawoo ngir lan moo tax ngir suñu borom subhaanahu wa taala daf leen a bind euh, def euh, seenug lekk ak seenuk naan ci jaamu yàlla gi la ko suñu borom subhaanahu wa taala def ba tax na duñu soxlawoo ak lekk duñu ñu soxlawoo ak naan comme du ñu soxlawoo ak lekk du ñu soxlawoo ak naan na kon duñu ñu soxlawoo yi nga xam ne mooy topp ca ginnaaw loola. muy mel nii euh, kon euh, wa annahum naka ñoom malaaka yooyee day laa naa duñu euh, xayta wala na niki nooy ni tam duñu duñu tuur ndox ñoom malaaka yooyu suñu borom bi subhaanahu wa taala ni mu leen bindee daf leen a bind ñu doon bindeef yoo xam ne duñu aajowoo li nga xam ne mooy tuur ndox ndax duñu soxlawoo li nga xam ne mooy naan bay tuur ndox kon bu boobaa itam ci anam googu la leen suñu borom subhaanahu wa taala binde moo tax mu ne mu na way laab lan maanaam ay bindeef lan ñoo xam ne suñu borom subhaanahu wa taala moo leen laabal suñu borom subhaanahu wa moo leen laabal kon ñoom sobe du génn ci ñoom ndax li nga xam ne mooy waral nit ki am sobe yépp euh, suñu borom subhaanahu wa daf leen koo fegal ba du génn ci ñoom kon ay bindeef lan ñoo xam ne suñu borom subhaanahu wa euh, daf leen bind euh, waaye bind leen ci. Euh, anam goo xam ne daf leen a laabal daf leen a euh, laabal ci lépp loo xam ne mooy bàkkaar waaye laabal leen ci lépp loo xam ne moo aju ci wàllu sobe ak ya nga xam ne moo ci aju yépp ñoom malaaka yooyu bokk na ci li ñu war a gëm ci ñoom ba tey sëriñ bi radiyallahu anhu di ñu ko leeral mooy lay suu zukuran déet ñoom ñu di ay góor euh, laa walahum yakuluuna déet ñu di way lekk wala inaasan du ay jigéen wala hum yasrabuuna waaye it duñu ñu aji naan maanaam du naan ay mbindeef lañ loo xam ne ñoom suñu borom subhaanahu wa taala daf leen bind duñu ay góor ñoom malaaka yooyu waaye itam duñu ay jigéen duñu ay góor duñu ay jigéen kon suñu borom subhaanahu wa taala moo leen bind ca anam wa ko soob ndax moom suñu borom subhaanahu wa taala mooy ki nga xam ne saabu nammee dara day wax ne nekkal rek loola nekk kon la mu nam ma nekkal loola rek moom mooy nekk ndax euh, moom moo wax ne innama amruhu iza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun kon namu na ko soobe euh, ngir malaaka yi mel noonu na ko soobe ngir mu binde leen noonu noonu rek lay wax ni nekk leen ñu daal di nekkee noona kon noonu leen suñu borom subhanahu wa taala binde bindu leen ñu di ay góor bindu leen ñu di ay jigéen bindu leen ñuy ñoo xam ne dañuy soxlawu ak lekk wala ñuy soxla ak naan kon ñoom nan la leen suñ borom subhanahu wa taala bindee moo tax mu ne bal li fi ne kay hum ñoom malaaka yooyu ibaadun ay jaam lan ñoo xam ne na ñu suñu borom bi subhanahu wa taala teral lan kulluhum ñoom ñëpp nag amul kenn koo xam ne daf la dañ la ci euh, settee ci teral googu kon ñoom malaaka yëpp suñu borom bi subhanahu wa taala leen euh, teral moo leen teral euh, ci Euh, fegg leen ci lépp loo xam ne mooy bàkkaar waaye teral leen ci fegg leen ci lépp loo xam ne mooy mooy sobe ak lépp loo xam ne euh, mooy euh, gàkkal mbindeef war rabbate buur ba laa yansuuna duñu moro duñu moy maa amarahum la mu leen digal maanaam wala yansuuna allaha ma amarahum mooy li ñu doon wax ne ñoom ay mbindeef la ñoo xam ne duñu mooy mukk li nga xam ne moom la leen suñu borom subhanahu wa digal li leen suñu borom subhanahu wa taala digal rek ci loolu la ñuy sax euh, du ñu ko mën a mooy mukk malaaka mënuta mooy yàlla bu ko bëggan sax mënu koo def ndax ci tabiya bi ko suñu borom bi subhanahu wa taala binde la waaye ni ko suñu borom subhanahu wa taala sàkke la ba tax na malaaka mënuta mooy yàlla ndax ay jaam lan ñoo xam ne suñu borom subhanahu wa taala moo leen teral def leen ñuy ñoo xam ne duñu mooy duñu mooy yàlla mukk moo tax mu ne wa annahum ak naka ñoom malaaka yooyee xalaqahum bind na leen rabbul bashari boroom bindee fii mooy suñu boroom subhaanahu wa mi nga xam ne moo bind aadama bind yonent yi bind lépp loo xam ne mooy dox ci kaw suuf waaye moom suñu boroom subhaanahu wa taala moomu ci lan la bind binde malaaka yi min nuuri yi bind gim leen bind mi ngi tukkee ci ak leeram maanaam ak leeram moom suñu boroom subhaanahu wa moom la jël bind ci malaaka yi fa xaala fuuhum mu wuutale leen fi yi ci ak ak mbindeef yi kon suñu borom subhaanahu wa dafa bind malaaka yi bindiin woo xam ne ci anam woo xam ne daf leen a bind wuutale leen ak ñi nga xam ne ñooy ñooy mbindeef yi kon daf leen bind ci ak leeram te doomu aadama suñu borom subhaanahu wa taala mi ngi ko bind ci euh, ban euh, suuf ak ban ndox ak ban la ko suñu borom subhaanahu wa taala binde euh, li nga xam ne mooy jinne yi Euh, suñu borom mi ngi leen bind ci sawara waaye ñi nga xam ne ñooy malaaka yi nag ñoom suñu borom subhaanahu wa ci ak leeram ci la jénne daal di leen ciy binde kon ñoom buñ bëgg na mon mooy yàlla sax duñu ko mën a mooy ngir suñu borom subhaanahu ni mu leen bind la dafa xar ci ak leeram jël ci bind leen ci def leen ñuy jaam ñoo xam ne daf leen a teral ba duñu mën a mooy yàlla mukk waaye def leen fekk leen ci lépp loo xam ne moo leen di taxa mën a mooy suñu borom bi subhaanahu wa kon loolu ay yenn la ci yoo xam ne war nañ koo gëm ci euh, malaaka yi ridwanullahi alayhim nga xam ne dañoo war a gëm ne ñoom malaaka yooyu ay mbindeef yàlla lan ñoo xam ne yàlla moo leen bind euh, bind leen ci anam wa ko soob waaye melal leen ci euh, anam wi nga xam ne noonu la leen binde waaye itam mu digal ñu ñu gëm leen te bañ cee bàyyi kenn ñu gëm leen doom ñëpp waaye gëm ci anam gi nga xam ne noonu la leen suñu borom subhanahu wa taala binde waaye gëm itam euh, euh, li nga xam ne mooy mission yi nga xam ne moom la leen suñu borom subhanahu wa taala di doxloo euh, ñoom malaaka yooyu kon ginnaaw suñu borom subhanahu wa taala daf leen a bind ci ak leeram ñoom malaaka yooyu kon duñu mën a mooy yàlla mukk duñu mën a def lenn loo xam ne dafa wuute ak ndigalal suñu borom bi subhanahu wa taala kon loolu lenn la ci li nga xam ne euh, li ñu war a gëm la ci malaaka yi euh, ñu euh, teg foofu suñu loxo wàcce foofu kàddu gi di tuub tey jégglu di balu ñëpp ak di wax ne in uridu illa al islaaha ma stataatu ma tawfiq illa billah wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala bi